tey jii ci ajuma ji yem ak fukki fan ak benn ci weerum décembre atum 2020 euh, li gën a fës rek ci biir internet bi dañu koy door rek mbas meek tolluwaayam ci biir réew mi euh, tey jii nag Sénégal daal dina def lu tollook 1397 ci ay test ci biir lool rek 127 yi rek ñoo ci daal di ñëw positif maanaam amee jàngoro ji ci biir 127 yooyu rek am nañ ci 60 cas contact am ci 63 de la transmission transmission communautaire am nañ nag 65 patients yi ñu hospitalisé woon nag wér nañu Sénégal daal am lu tollook 14 cas grave tey jii rek Sénégal daal nay wàññiwaat lu tollook ñaari décès bi mbas mi nag duggee ci biir meek léegi Sénégal wàññi na lu tollook 16 893 ci ay ca ci biir loolu rek 16 095 yi wér nañ ci 345 ñàkk ci seen bakkan ñi ñuy saytu nag ci lalu hôpital ñu ngi tollook 632 ministre bi rek di gën di ñaax askan bi ñu sàmmonteeg mesure barrière yooyu nga xamante ni nii kër docteur digla ne ko ngir ñu mën a xeex rek mbas mi mu gaaw génn rek ci mim réew Euh, ci mbas mi rek la ñuy daal di dese nii gis nañ ne nag dafa daal di duggaat bu baax a baax ci réew mi ba tax ki nga xamante ni nii rek euh, moo di ministre de l' intérieur di Antoine Félix Diome euh, daal di rek génne rek ab décret niki démb rek ci alxames ji lam ca xam la rek moo di port obligatoire de masque ci lieu public yeeg privé yi lieu de commerce yeeg moyen de transport yi daan na ciy toftalaat ne lépp loo xamante ni rek di ab dajaloo jëm ci plage yi ak terrain yi ak espace salle de spectacle yi ah, jamono ji rek dañu koy dakkal ngir xeex bi ñuy xeex mbas mi rek tax ñu bëgg a dakkal loolee mu di dajaloo yeeg yu ni mel ngir dakkal loolee ndax rek xeex bi ñuy xeex mbas mi daal di gaaw jeex rek ci mim réew ndax gis nañ ne dafa daal di duggaat bu baax a baax ci réew mi ak ah, ki génne rek boobu la décret nekkul kenn ku dul Antoine Félix Diome di ministre rek de l'intérieur dañuy desandi rek ci mbas mi daal di wax ci ki nga xamante nii rek moo di Moustapha Diakhaté ginnaaw nag bi mu publier rek ca page Facebook am xam le ne ah, amaan bi nga xamante nii teg nañ ko ci ku takkul masque ñu lay fayloo lii di juróom téeméer nekku leen lu dul sàcce ak njublan jëm ci ki nga xamante ni rek moo di état nee na képp koo xamante ni rek fayloo nañ la juróom-benn téeméer yooyu lee ah, na nga bañ rekk ba tëdd ca ñag ba ndax xam ne loolee nekkul benn yoon yoon nekkul tamit leen loo xamante ni rek lu légal la ki xam ne rek yooyu lekkat kàddu moo di Moustapha Diakhaté foofee rek ca page Facebook am dañuy daal di wéy ni wax ci ki nga xamante ni rek moo di Mame Gor a ginnaaw nag ab interview bu mu seqoon nag waa référence actu lam ca xamle rek moo di nee na moom dafa rafetluwul étudiants yi nga xamante ni nii ah, fayuñu leen seen i bourse ndax nee na loolee nekkul benn yoon loo xamante ni lu normal la dañ leen a war a fay rek seen i bourse daal na ci daal di attaque ki nga xamante ni rek moo di leaderu Pastef bi lee di Ousmane Sonko ngir xamle rek ne kasetam yooyu nga xamante ni doon nañ ko taal foofee ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru indiqué ki rek àllarba ji ñu génn nee na kenn defu ko ku dul ay mbokki usmaan Sonko nee na Ousmane Sonko moo yabal ñooñee nga xamante ni ñoo jënd kaset yi daal di koy taal foofee ca université ba ginnaaw nag bi kàddu yooyu jubee ki nga xamante ni rek moo di nit dof rafetluwul benn yoon ki nga xamante ni moo di Mame Gor Diazaka ni muy attaque rek Ousmane Sonko nee na lii moom nekkul politique nee na lii rek haine la boo xamante ni am na ko jëmee ci Ousmane Sonko te nee na façon bi nga xamante ni Mame Gor Diazaka mi ngi koy doxalee jamono ji am na ñenn ñoo xamante ni ñi ngi ci biir parti APR te rafetlu wuñu ko nee na Mame Gor Diazaka dem na ba toll foo xamante nii rek heure bu waxee rek ñëpp ay daal di taf seen nopp ndax nee li nga xamante xamante ne nii rek mi ngi koy def kii di usmaan Sonko di en la bu am ci moom waaye nekkul benn yoon ah, lii di ah, politique ki xam ne yooyu le kàddu rek ah, moo di nit dof ca diwaanu Touba nag la ñuy daal di jubali ca quartier boobee ñuy wax nag ndaamaatu benn jigéen bu am lu tollook ñaar fukki at ak juróom-ñett te di jabar rek ci policier moom la ñu daal di teg loxo ngir lan daf doon trafiqué li nga xamante ni nii rek moo di yàmba dañu ko jàpp ak ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay kornetu yamba foofee rek ca néegam ba nekkee ndaamaatu ah, ca diwaanu tuubaa atte nañ ko nag ca tribunal bu la ba ndaw si nag danañ ko tëj lu tollook ñetti at kaso ci fàttali rek ndaw si nag yaay la bu am lu tollook juróomi doom ci ñaawteef fii rek la ñuy daal di dese ni nag gis nañ nag benn caissière bu yooyu ci turu Rose Diatta moom nag patron moo ko daal di ëmbal patron bi nag ab chinois la daf ko daal di ëmbal rek mu dal di bëgg a yàq ëmb lee daal dem ci nag infirmier bu retraité am lu toll ko juróom-ñaar fukki at ak juróom di wuyoo ci turu Ousseynou Ndiaye moo ko doon yàqal nag ëmb boobule ba tax rek ki nga xamante ni rek moo di Ousseynou Ndiaye yoon nag daal na koy teg loxo moom ak ndaw si ba tëj ko lu toll ko ñaari tegal ab amende cent mille francs ndaw si nag yoon daan na koy tëj lu tolloog benn at kaso ngir da doon yàq li nga xamante ne nii rek moo di ëmbam boobu lay jógee ci patron wu sinuwaam boobu dañ ci daal di toftal ki nga xamante ne nii moo di Ndeye Ndack nekk ab animatrice nag foofee rek ca 2STV yi ñu gis ne nag ndiki démb nag wër na réseaux yi ngir ñu xamle ne dafa daal di bëgg rek bàyyi fi nga xamante ni moo di 2STV ah, moom Ndeye Ndack nag daal di nay génn nag ca page Facebook am daal di wax ne bàyyiwul dafa feebar rek moo tax te dafa bëgg rek noppaliku naam buñ ko gisul sax ci écran yi dina nekk rek ci production bi ma ngi ko xamle rek ca page Facebook am nee na moom bàyyiwul dina mas a bàyyi nag waaye du doon doon jamono ji dafa tawar rek te mi ngi sant yàlla bu baax a baax moo tax rek muy noppalu duñ ko gis nag fan yi rek ci écran bi buñ sukkandikoo rek ci ëttu jéglekaay boobule di Sénégal moo daal di xamle yooyu les informations dañu koy daal di jeexale ak anniversaire njiitum réewum Sénégal di président Macky Sall niki tey rek ci aljuma ji rek ko fukki fan ak benn ci weerum décembre muy fête li nga xamante nii rek moo di anniversaire am muy am nag lu toll ko juróom fukki at ak juróom ñeent mi ngi juddu nag fukki fan ak ak benn ci weerum décembre 1961 foofee rek ca Fatick ñu di ko souhaiter rek un bon anniversaire équipe bu 24 actu bi yëpp rek di souhaiter un bon anniversaire à Macky Sall njiitum réew mu Sénégal lii rek moo fi gënoon fës amee internet yi dig daje rek lay doon ba ëllëg ak jàmm.